monsieur Famara Ibrahima Cissé ñu lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa ngi leen di fay di gërëm di sant ci dalal bi ngeen ma dalal. Mm-hmm, nga jiite Axif tey ñu waxtaanee ci li jëm ci euh, xibaaru euh, actualité secteur bancaire euh, ñu wax ne dinañu dakkal lii di DMC yi ndax li ko waral njiitu réew mi joxe na ko tey lan ngeen ci xalaat. waaw sunu xalaat ci dakkal bi président wax moo di. Euh, loo xam ne moo di euh, dafa defewul daanaka ñun dañ cee àndul benn yoon boo xoolee li ñuy wax crédit DMC mooy pay prêt la boo xam ne du am intérêt daanaka nguur gi da ko doon jagleel liggéeykatam yi ndax ñu mën a am lu ñuy wax euh, kër wala am loo xam ne dañuy wax lu ñuy wax terrain. Mm-hmm. loolu nag depuis 1982. président yi ko fi jiitu woon ku mel ni Abdou Diouf moo ko fi tegoon bu mu ko fi tegee nag boobu ak léegi euh, ñu gis ni Abdoulaye Wade jaar na fi Abdou juuf bu mu koy teg defande ne woon bépp liggéeykat boo xam ne eh, état bi dalaa jël boo ko soobee boo ko soxlaa daan la jox lu toll ci ñaari million pour que nga mën a am kër. Mm-hmm. loolu nag lebal la du du may bor la boo xam ne dañ koy fay waaye du am intérêt. Euh, mille 2006 bu Abdoulaye Wade ñëwee mu jël benn ndogal décret mu ne nañ ko yaatal parce que dafa am ay fonctionnaires yu ko doon am ak ay fonctionnaires yu ko daan doon am. Mm-hmm. Abdoulaye Wade ne nañ ko yaatal ca boobu la professeur université yi bokkee ca boobu la magistrat yeeg euh, haut fonctionnaires yi bokkee ak ñeneen donc non seulement Abdoulaye Wade bu mu ñëwee def ko yaatal pour euh, yeneen fonctionnaires yi mais dafa yokk xaalis bi jëlee ko 2 millions yóbbu ko cinq millions. Mm-hmm. mu ne nag pour que fay bi oyof il faudrait aussi que ñu yokk daanaka euh, échéance yi daanaka euh, at yi ko daan fay bu njëkk ba ñeenti at la woon Abdoulaye Wade yóbbu ko ba juróom ñaari at mu nekk loo xam ne dañ koo rafetlu parce que ndimbal la ci ñi nga xam ne dañuy liggéey ak état bi ñu yaakaaroon ni Macky Sall bu ñëwee da koy gën a yokk da koy gën a ful ñu dégg bu muy recevoir centrale syndicale yi mu wax leen ni état bi mënatu ko ah ñun mu jaaxal ñu lool parce que ñun dañuy xeex ak ak yelleefu clients yi ci banques yi. Mhm. yàgg dénoncé li ñuy wax taux d'intérêt yi parce que sénégalais yëpp nangu nañ ni taux yi leen di jox jéggi na dayoo léegi nag ñu gis ñu ne état bi ne moom day bàyyi crédit DMC moo tax ñu ne syndicat yi loolu bu leen ko nangu. yéen ñëpp na ngeen mobiliser wu pour que ak bi nga xam ne daanaka xeex bi nga xam ne xeex ngeen ko ba am lu ñuy wax crédit DMC Abdou Diouf teg ko Abdoulaye Wade yaatal ko Macky Sall ba ko génne ñu ne nag loolu buñ ko nangu bu ko kenn nangu parce que boo leen ko nangoo li muy jur ëllëg dana métti loolu ci askan bi. Mhm. Mhm. Mhm. tey li Macky Sall. waaw yaakaar. waaw waaw allez waaw li ñu yaakaar ni wax dëgg yàlla moom la waroon def mooy. Mhm. gën koo jëmmal gën koo yaatal. jëmmal ko mooy gën a yokk montant bi comme ni ko Abdoulaye Wade defee woon jëlee ko deux millions yóbbu ko cinq millions. Mhm. ñun jàppoon nañ ni bu ñëwee da koy jëlee cinq millions yóbbu ko dix millions. wax dëgg yàlla euh, war na koo mën te jàpp nañ ni xolam attan na ko waaye nag ne dama koy daggal loolu beneen euh, jafe-jafe lay indil askan parce que ci banque yi. Mm-hmm. boo lebee ñaari million ñeenti million ngay fay. boo lebee fukki million ñaar fukki million ngay fay. donc mu nekk ay jafe-jafe yu métti yoo xam ne liggéeykat yi ñu ngi koy dund ci banque yi dem na ba nga xam ne liggéeykat yi tey mënti ñu jot seen payoor parce que banques yi euh, xoj dañ leen di jël lépp lu ñuy fayeku donc loolu day gën a indi jafe-jafe ci liggéeykat yi pour ñu mën a am euh, li ñuy wax kër. ndax mais dakkal DMC yooyu li méngoo nag euh, programme yi mu fi teg yu ci mel ni cent mille logements ak it euh, tey jii ñàkkum xëy ndaw yi. waaw méngoowul parce que dama jàpp ni boo nee damay créer cent mille ndimbal nga ci jublu waa ndimbal boobu nag boo fa fekkee benn ndimbal danga koy da fësal da nga koy ful mooy lan yow fekk nga benn ndimbal boo xam ne dañ doon dimbali ñi nga xam ne ay liggéeykat lañu pour ñu am kër. yow nga gën ko bëgg a yokk ba pare di supprimer ay ndimbal ne cent mil logements yoo xam ne fi mu nekk ni kenn xamagul kañ lay tàmbale ti mu nekk ni euh, xamuñu nan la ko nit ñi di amee yow nga bëgg a génnee parce que tamit il faut ñu wax ko daanaka 2012 ba léegi boo seetee crédit DMC boobu sax ñi ci jox bëriwuñu donc loolu dafa méngoowul ak politique sociale parce que mënoon ne damay social ba pare di yàq social parce que crédit DMC sociale la dimbale askan bi nga xam ne dañ doon dem ci banque yi te ñu fa am prêt. Mhm. wala bu ñu demee ci banque yi prêt prêt bi taux bu ñu leen koy dafa ëpp dafa jéggi dayoo nga jox leen pre boo xam ne dañ lay fay waaye du am intérêt loolu nag ñu koy lu ko doon rafetlu jàpp ni dañ koy yokk waaye mel na ni euh, bàyyi bi kat dañoo bëgg ñoom génn ci social te loolu lu mu nar a jural askan bi dafa dafa doy waar dafa yéeme. comme dafa yéeme parce que dana créer lu ñuy wax problème surendettement tey bor boru ba yow dootoo mënati dund dootoo mënati yor sa njaboot te la ngay liggéey parce que ñun jàpp nañ ni non seulement fonctionnaires yi dañoo war a yokk montant bi mais aussi dañ ko war a yaatal parce que état ñëpp ko bokk ñëpp ci yem waroo jël say liggéeykat ay fonctionnaires état bi rek jox leen euh, cër boobu jox leen euh, dimbal leen ndimbal boobu da ko war a yaatal ci secteur privé bi ñu loolu lañ doon xaar ci état bi mu ne kat comme Abdoulaye Wade yaataloon na ko ci yeneen fonctionnaire yëpp ba ñu ba mu daj volontaire yeeg maître contractuel yi professeur contractuel yi sax dañ daan am ak Abdoulaye Wade parce que loolu amuloon ci Diouf moom bu ñëwee danaan secteur privé bi yëpp laa ciy boole ñun loolu lañ doon xaar ci générosité am mu ne journaliste yeeg nekk ci privé beeg euh, travailleurs yi nekk ci privé bi yéen ñëpp am ngeen possibilité léegi jub jàkkaarloog état bi laaj ko cinq millions mu jox leen ko gën a wuti kër ngeen dëkk fa seen njaboot ñun loolu lañ doon xaar ci état bi waaye taxaw ne dañ koy supprimer parce que cent cinquante milliards la demande yi mais cent cinquante milliards yooyu kenn kenn kenn lebu ko te du fay boo ko génnee tamit dañ la koy fay nga war ko mën a jox ñeneen ak ñeneen ak ñeneen parce que crédit DMC en réalité loolu la dañuy génnee benn enveloppe ne bii dañ koy leble le temps que ñee fay ñu jox ñeneen mu xaalis bi nag du tourner mm-hmm. mais du dara du ci wàññeeku loolu donc dimbal la ñu waroon ko élargir ci secteur privé bi ñun loolu lañ doon xaar ci président de la république bu ko defee banques yi bu gisee loolu ak mutuelle yi danañ sax wàññi seen taux parce que bu boobaa danañ sentir ni sénégalais yi di liggéey mën nañ am nañu possibilité état bi jox leen lu toll ci juróomi million wala fukki million ñu dem liggéey te duñu fay benn intérêt euh, principal bi rek la ñuy delloo loolu lañ doon xaar pour que système bancaire bi sax ñu concurrencer leen ñu mën a wàññi seen i taux d' intérêt mais taxaw ne dama koy daggal na ñëpp dem ci banques yi mais yow yaa ngi enrichir ay multinationales yaa ngi enrichir ay banques étrangères d'autant plus que yow amoo ay banques nationales yu tax ñuy wax bi fi nekk xam nañ ko moo gën a yées yëpp parce que nee banque état bi la te état bi moins pour cent la ci mais tey jii wax leen wax leen li fi ne gënul ci moom ndax euh, tey mën na leen dig te euh, mën naa bañ a am mu yor boobule koppar euh, moom nee na nag ku dispositif bi ak li nga xam ne mooy candidat yu bëri bokk na ci li nga xam ne mu koy dakkal. waaw xam nga xaalis bi doo ko joxe rek dootul duggati du loolu nee la sànq xaalis bi bu dee cent kan mooy garantir. non état bu lay liggéeyal. Hmm. booy liggéey ci état bi mais état bi mooy garanti moom mi di la lebal tey état bi moo moo boole ëmb ñëpp liggéeykat yi état bi mais état bi mooy seen principal garanti balaa mu leen di garanti ci beneen banque mais na leen garantil boppam. Mhm. na leen garanti boppam beneen bi mooy même entreprise privée yi mais état bi moo leen war a protéger état dafa war a sàmb liggéey ci dëkk état dafa war a fexe ba ku nekk nga am fu nga dëkk loolu devoiru état la ku nekk nga lekk ba suur am fa nga dëkk dëkk dëkkuwaay bu baax loolu devoir état la moo taxoon président Abdou Diouf tegoon fi crédit DMC Abdoulaye Wade yaatal ko ñu jàppoon ni Macky Sall bu ñëwee koy gën a yaatal bu ko defee privé bi am ci loolu mooy xeex bi nañu fexe ba privé bi secteur privé mooy menuisier yeeg mécanicien yi nga xam ne sax dañoo nekk dans l' informel. Mhm. war nañ leen mën a lebal bu ñu leen lebalee ñu am fu ñu dëkk bu ñu liggéeyee ñu fay parce que Sénégal war na toll foofu te xaalis boobu. du xaalis bu bu nga xam ne da koy lebal mu dem dootul dikkati ko lebal benn yoon nga koy lebal te boo ko ko lebalee day fay nga jël ko joxaat ko Masamba Masamba fay nga jël ko joxaat ko Mademba muy dem de génération en génération bu yàggee ñëpp am suñu dëkk te dootul coowati ci kër donc mécanisme bu baax la woon. Mhm. dañ ko waroon encadrer élargir ko mais taxaw jàkkaarloog syndicat yi ne leen dama koy supprimer loolu wax dëgg yàlla syndicat yi sax si boppam fi mu nekk ni seen mobilisation dafa war a doon bu ko defee président revenir ci décision bu xam ni politique sociale politique logement da ko war a jëmmal da ko war a samp ci biir dëkk bi. Mhm. wax ci beneen mbir muy répression de l'usure euh, loi bi ñu voté woon ko weeru juin gi ñu euh, wees te jii lan moo soppeeku ci projet boobule. daanaka dara soppeeku ci voté nañ Sénégal day voté ay loi yoo xam ne luñ ko respecté banque yi faalewu ñu loi wu Sénégal ñoom seen i doxalin bopp lañ yor. parce que xam nañ ne amul kenn ku leen di sanctionné. ma lu tax lu tax lu tax lu tax banque euh, ñoom respecté wu ñu li nga xam ne moom mooy euh, moom moo jëm ci boobu les lois. mais suñu faiblesse sum réew la dañ ko waxante suñu faiblesse sum banque centrale la am na dëkk yoo xam ne banque yi fa nekk dañuy respecté banque centrale bi respecté état bi parce que boo fa defee naka sudul noonu ci saa si ay sanctions yu métti yoo xam ne mën na dem sax ba tëj sa banque ba moo fa nekk fii teg nga ma état na la tëj naa banque bii amut te pourtant ñëpp xam nañ ni banques yi ñu ngi ñu ngi ñu jalgati yoon fii lañ génnee en 2014 fukki poñ ak juróom-ñeent na yii kenn bu mu ko fayati mais am nay banques yoo xam ne respecté wuñ si dara ba tey may wax ak yow nii di ko fayloo clients yi amul benn sanction bu dal seen kaw waa nag bu nekkee ci réew moo xam ne banque bi xam na ni kenn du ko sanctionné mais bu boobaa lu ko neex def looloo ñu dal moo tax fu leen neex samp taux d'intérêt yi fu leen neex samp service yi ngeen gis ni ak bancarisation bi nga xam ne dañoo wax ni désormais mhm. képp ku am salaire bu toll ci ñaar fukki junni force force dañ koy yóbbu banque sinon ay daan dal seen kaw waa loolu bu ñu ko defee nag dañoo waroon am mesure d'accompagnement di surveiller banque yooyu di jël ay mesures ci bu jalgatee yoon mais amul benn mesure bu ñuy jël am banque yaa ngi jalgati yoon comme ni mu leen neexee population bi di souffrir nga gis ni yow même lu ñu lay fay bu baax na mais bu xasee ba jaar banque ba tegu sa loxo bi dara dootu si des que banque bi day guux lépp. Mhm. loolu nag muy indi problème mu apo euh, pauvreté ci biir réew mi. muy lan nit yi di liggéey ba pare duñu gis seen bopp ci biir liggéey bi looloo fi am te banque yi rôle bu ci joué dafa mag xam nga banque dafa waroon di accompagner population. banque dafa waroon di accompagner entreprise yi. dafa waroon di accompagner état yi mais ñun suñu banque yi ñoom seen bopp lañ fi nekkal suñu banque yi. seen réew seen seen réew la ñuy liggéeyal ñëw fi nag ci alalu askan bi yóbbu ko dem tabaxi seen réew. Mhm. moo tax état du Sénégal war a créer ay banques nationales wax ma ay banques yi nga xam ne euh, waaw bu la banque Sénégal la ba pare vingt pour cent la ci action loolu ay caaxaan la banque nationale état bi da ciy nekk actionnaire majoritaire sénégalais yi yor fa ay action yu dëgër loolu mooy banque nationale. mais ay banque nationale nga tuddee ko banque nationale ba pare yow say action matul vingt mais loolu ay caaxaan la kan la ñuy nax xam naa mu ngi ci yoon ndax annoncé na ko ci euh, ndoxteelu at mi euh, wax ci leneen muy euh, jóge ci benn banque dem ci beneen tey ji lan moo waral ba tey libéraliser wu ñu ko waa xam nga tey banque yi dafa doon kaso boo fa duggee pour nga génn di nga fay ñeenti fukki junni mhm. jaag la ko ci ñaari kayit yu yu yu ñàkk solo yu ñuy wax attestation d' engagement ak attestation de non engagement yooyu nag ay dëgg sërëxal la yoo xam ne dañ koo teg pour mën a euh, téye client bi mu bañ a génn parce que boo bëggee génn ameloo dara banque bi ñu ne la di nga fay ñaar fukki junni mais yooyu loolu du ko jaral parce que am na ay salaire yoo xam ne tollul ci ñaar fukki junni dañ ko waxante dëgg donc dangay mujj toog ay toog bu amee concurrence du am parce que boo déggee concurrence concurrence mooy entreprise yi dañuy taxaw banques yi dañuy taxaw. Hmm. ku mu neex génn fii dugg fële kee racheté kii fayal la donc bu ko boobaa mu am concurrence banques yi di xëccoo clients yi mais xëccoo amu fi parce que bu ci njëkk mooy même actionnaires yi ñoo nekk ci banque bi même nit yi même yi ñoo nekk ci banque bi ñoo nekk ci banque bële ñoo nekk ci banque bee benn hmm. groupe la moo moom banque yi benn groupe la ñoo moom banque bii ñoo moom banque bële ñoom donc déjà concurrence amut beneen bi mooy euh, concurrence mooy nga génn fii dugg fële amul parce que boobu ngay génn ñu ne la da fay ay deux cent mille ay ay cent mille mais yooyu du la ko jaral dëkk nag bu amul concurrence prix yi du wàññeeku dëkk bu amul concurrence qualité de services du am. Hmm, dëkk bu amul concurrence usager bi du am sécurité. looloo ñu dal fii Sénégal nañ ko waxante il faut que ñu créer ay banques nationale créer les possibilités de concurrence entre les banques bu ko defee askan bi di ci gis seen bopp bu banque bi nanguwul joxe prêt beneen banque bi taxaw di joxe prêt bu ko defee ñëpp dem fa bu banque bu banque bi nangul wàññi ay service am beneen banque bi wàññi ay service bu ko defee ñëpp dem fa te bu boobaa banque yi bañ a joxe prêt mhm. banque yi bañ a wàññi seen service yooyu bu boobaa dañuy daanu te bu boobaa doo leen ko jaral dañuy ñëpp koy wàññi bu boobaa te buñ ko wàññee askan bi gis si boppam. Famara si Cissé ci ay simili rek ndax euh, waxtu wi euh, dab nañu tey ji qualité service yi ci banque yi ndax am na coppite. waa mais qualité de service bi wàccal rek nga dem ci agence yi di nga gis ni nit ñaa ngi fay buruxloo gab yi sax da ngay gis ñu koy rang te carte gab bi li nga koy fay dafa cher mm-hmm. tey commerçant bi nga xam ne activité am dafa tox mu war a gaaw mu dem banque pour def fa benn opération mu rang fa trois heures de temps mais dootu ko fa jaral qualité service bi li mu bon moo tax ngay gis nit ñi di jël seen alal di ko dugal seen biir kër seen suufuroon lal du ko dugal ci ay pëna muy lakk ñu koy bàyyi ci marché yi ñu koy bàyyi ci boutique yi muy lakk di yàqu loolu yëpp c'est parce que dafa amul qualité de service tey même ak digitalisation bu ñuy wax nii mooy lan sa portable ngay defee transaction yi mhm. mais ñun xam nañ lu fa xew amul presque benn sécurité cybercriminels yi fële la ñuy toog Nigéria la ñuy toog wala gana vider sa compte nga dem ñu lay làkk daadaa loolu donc comme qualité de service amul il faudrait que état bi ak banque centrale ñu woo banques yi toog ñoom. Mhm. ñaax leen mettre l'accent sur la qualité de service et sur la concurrence parce que qualité de service dafa baax ci concurrence banque bu la ëpp qualité de service moom moo le ëpp client mais comme ñoom ñëpp dañoo boole waxtaanee ko euh, déggoo ko ni qualité de service bu fenn baax mais client bi moom moo ci per économie moo ci perdre parce que boobaa économie bi du dox ni mu war a doxee du am rapidité bu mu war a am euh, loolu nag moom baaxum ci réew. baaxul ci ñi nekk ci réew ma. Mm-hmm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Famara Ibrahima Cissé nga jiite ACSIF. maa ngi leen di gërëm leen sant.